yéen a ngi teewlu seen seen réew mi 24 TV. waa sama video bii nag maa ngi koy def adressé ko patriote yëpp di nekk ci Sénégal partout Sénégal ak bitim réew. Eh, rawatina suñu njiit nga xam ne moo jiitee Pastef les patriotes muy président Ousmane Sonko eh, léegi rek lañ jóge nii tëngeej mu ñëwoon fi vraiment tëngeej jëpp génn tertu ko tertu bu rafet waaw def na nag discours boo xam ne bi mu koy def mi ngi ma fekk maa ngi taxaw eh, par rapport ak discours boobu rek moo taxoon may ñëw sax di ñaan ministre de la justice Eh, di ñaan ministère de l'intérieur ñu jël seeni matukaay ci tooñ yi nga xamante ne eh, coalition sàmm sa kàddu ngi dëkk di ko tooñ parce que am nañ attaque fii Dakar ak Abbas Fall am nañ attaque ak Mbacké am nañ attaque ak Diourbel tey ji am nañ attaque ak ak ak eh, Ndar loolu lépp nag ëpp ñu ñu doole mais dañoo respecté yoon su dee dañuy dem ci yoon nag yoon fajul loolu day jur fajal sa bopp ñu ngi leen di ñaan nag ñu def seen liggéey donte nag état démocratie lañ yor parce que lii bi fi Antoine di nekk sax lu kenn xalaatu ko militant APR sax ku mës a bëgg ñu jàpp ko doo fanaan sa kër démocratie nag d' mais ne lu ànd ak ay preuve matérielle la kon luñ wara a mën a jóg la waaye nag di ñaan bépp patriote yoon bi ñu nekkoon depuis élection yi euh, euh, campagne bi tàmbali ak tey ba ñëpp xam nañ ne man maa leen ko wax fii cent cinquante député man gëm naa ne bu ñu demee élection ba ngoon dinañ ko am parce que opposition bi gisuma fu ñu mën a jaar ba am quinze député yoon boobu ñu jaaroon nag opposition bi ñoo ñu gën a xam ne ñoom dinañ am gàcca la di set bu kenn musta gis gàcca kooku nag moom la ñuy njëkkante di ko woote ci violence parce que violence ñàkk argument rek moo koy indi li naqari président Ousmane Sonko xam nañ ko mooy jàkkaarloog deretu patriote yi muy walwali loolu ku ne xam na ne ak ni mu bëggee patriote yi loolu man na koo tàngaloo waaye nag ñun li ñu naqari incha allahu taala le 17 dinañ ko faj Sénégal gépp gis nañ tooñ yi Sénégal gépp tooñ gi naqari na leen waaye bu mu tax yoon biñ jëloon muy itinéraire biñ amoon pour campagne ñi di ko wàcc di jël beneen yoon parce que dañ ñoo dañ dañ dañ dañ ñoo tooñ bu boobaa ñoom Bart liñ doon bëgg day mel ne ñun dañ leen ci fekk si ñun nañ leen bàyyi ñoom ñu nekk ci seen violence ñun ñu nekk ci yoon bi nekkoon incha allah lu naqari nit bu la di settee danañ xam ne bési góor a koy bay duma yooyu mooy duma yi gën a neex mooy duma yi histoire di téye mais bu ñu demee baaw baab rek euh, damay ragal patriote yi ak seen xër mu ëpp ay loxo wala la leen xew fa loo xam ne après toor bi mën nañoo toppaat ndax ñun suñ donk dafa xaw a maa ngi ñaan man Ousmane aw ma sañ-sañ sax déggal ko waaye dama sukk ñaan ko lillahi wa rasulihi bu mu dem baobab di ñaan patriote yépp lu jege baobab sax ñu dëkk baobab sax nañ teggi baobab moytu ko rek bañ bala di set rek ñu faj suñ mer loolu moo gën ci ñun wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu